mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di àndee saa su ak programme 5 TV ma ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal série infidèle tey nag mu yemoog épisode 33 bi ñu sekans ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni nag ñilaan moom ak Madiaga ku nekk rek da doon jaay euh, sa morom euh, que ni maa la gën a muus euh, ku nekk di teg xel sa morom waaye ñilaan moom moo mujjee gagné ndax fexe na rek ba am oto ci loo xam ni wu dara wala Euh, joxewul euh, boppam euh, mu mel ni kon ma jaaga xale yu jigéen yi nga xam ni daleen daan jox alal rek pour jot si ñoom tey jii ki mu dajeel di ñilaan wuti na trop ak ñoom ndax ñilaan nekk na koo xam ni rek moom du yombal daraam ndax xam na ni góor ñi bis buñ jotee ci yow rek daal di lay sànni commencé di la fowee ndax rek expérience am moom moo tax mu xam ko ba tax nag mayul dara ki nga xam ni moo di Père Madiaga genre Père Madiaga yi nag nekk nañ ñoo xam ni ñoo yàq société bi ndax ndax dañuy nekk ay mag yor sen alal au lieu que ñu def ko ci loo xam neex na yàlla waaye nag duñ ko defee lu rek di fowee xale yu jigéen yi ak rek di leen ñàkkloo seen ay valeur ñu jàll ci Maysa ak Adelaide Maysa nak nettali Adelaide digganteem ak ki nga xam ni moo di ñilaan mu melni kon loolu nekk na lo xam ni début la ndax nga xam ni moo bëggul ne wax dara nga xam ni Adelaide waaye tey jii loolu tax na Ade gën ko jege ba tax nag mën ni kon buntu la ngir ñoom ñaar sen relation ndax euh, muy Adé muy euh, Meysa ku ci nekk libre nga te ku nekk itam xam na ni sa morom euh, libre na ñu jàll ci Bassir ak Sofia ñoom nag ci galère lañuy dund jamono jii def bi nga xamee ni te génn na leen ci kër gi ñu nekkoon ñoom ñaan nag dunduñu ci jàmm te yéen nag nekkuñu ci jàmm ndax muy Sofia muy Bassir ku nekk jàpp nga ni situation bi ngay dund sa moroom moo la ko teg batax tax nag ku nekk danga ngaa jéppi sa morom ba tax nag Njaay li muy wax rek lu Euh, nit comme ni ma koy waxee saa su ne mënoo dëkkee def lu bon nga yaakaar ni dinga nga ci am fay bu baax euh, lu bon moom boo ko dëkkee di def tôt ou tard euh, di nga ko gis mu ñu jàll ci beneen séquence <coughs> ñu gis ni Mbayang li mu tiit mooy Abdou daal di retrouver waat mémoire am ndax xam na ni loolu bu amee rek du ko jig ba tax nag mu daal di koy nettali li nga xam ni mooy Souleymane bi mu fa ñëwee nettali ko histoire bi ci beneen anam ndax li mu ko wax ak li am dara du ci dëgg waaye Abdou won na ko ni moog Souleymane benn lañu ay xaritu benn bakkan lañu kon yaakaar naa bu na naree séparé Souleymane ak Abdou dina nekk loo xam ne lu métti lay doon ci moom Mbayang nag moom Abdou prisonnier wam la ko jàppee ndax da koy drogué muy nelaw su ko defee moom mu génn ndax bëggul benn yoon Abdou daal di génn euh, kër gi ndax xam na ni Abdou bu génnee kër gi rek euh, mën naa rek daal di xelam mën na euh, dellu ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Diarra ak Julie ñoom ñaar seen xaritoo nekk na xaritoo boo xam ni bu dëggul lu sincère la muy loo xam ni day wone rek encore encore une fois dialogue euh, islamo euh, chrétien bi nga xam ni moo am fii ci senegal euh, ndax gis nañu ni senegal jullit ak katolik yi dañuy demlante lante di dikklante te tey ji histoire jaara ak Julie rek mën na koo dëggal ndax jaara ak Julie déggoon nañu te yi nag nekk nañu amitié boo xamante que ni yaakaar naa lekk na lu am solo loo xam ni ñoo ngi koy véhiculer ndax ku nekk yaa ngi topp sa diine yàqalul sa moroom dara terewul nag ñoo ngi waxtaan ci àdduna di waxtaan ci lépp ñu moom nag réussir na rek ba daal di yeeg nga xam ni moo di Abdou ngir génnee ko kër gi euh, muy loo xam ni nag du neex Mbayang ndax Mbayang moom bu sañoon Abdou du mos a génn ci euh, kër gi ñu jàll ci beneen séquence euh, ñu gis ni Mbayang dafa bëgg rek suul Buuba ci bi nga xamee ni moo ngi dund loolu lépp nag ngir génn ci situation bi nga xam ni ca la ko dugal ndax xam na ni Buuba bu nga xamee ni disparaître na wala mu dee dina tax rek ñu daal di fàtte un peu li nga xam ni moom def na ko wala nag du ñu am benn preuve ci diggante digganteem ak ki nga xam ni moo di euh, Bouba kon mbokk internet yi nañu leen topp ba xam fu waa leen di mu jekki gëtam waaye laata boobu wooye leen di abonné ci 5 TV te bu leen fàttee bës ci cloche notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëfee à très bientôt incha allah